li fi tax a daje tey vernissage bi nga xamni ni seen yi euh, photographe ño def liguey bu am solo bi moy revisiter li nga xamni mo nekkone nekkoon ci bé bi numu melone donc euh, gis nañ fi sorte pollution bu nek mu jóge ci kër yi mu jóge ci industrie yi mu jóge ci vraiment ci bateau yi donc nek lo xamni lu yéeme la donc nek lo xamni vraiment référence la référentiel la pour ONAS. Euh, pour vraiment sunde ba nga xamni ni te yàlla dana ko def ñu àggali projet de la Bourse Béthane ñu mëna revisiter encore li nga xamni mo fi nekkoon démb parce que suñu defee projet donc war nga xol ni ah, li fi nekkoon avant projet ak li fi nekk après projet pour ñu mëna comparer nak la projet bi amee donc dépollution de la bédane mom li wax sank ci ci tubaab mooy projet dépollution de la bédane nekk na projet bu am solo bo xamni président de la république de ko euh, de ko de ko réel parce que euh, dana ñëpp ñi dëkk ci bébé, bi li nga xamni moy assainissement de leen koy jël en charge industrie yi nga xamni nek na ci côté bébé aussi dañuy jël li nga xamni moy sen assainissement donc nek lu am solo ba motax tax euh, toll ni ñoo ngi ci euh, réalisation premier lo Moy bu wax intercepteur Moy réseau primaire bi ci long ci li li li li li jël bébé bi ci ci vraiment ni mu tëddee mu ngi toll ci fukki kilomètres ak euh, ak ñett wala ñeent yoo xam ni war na woon voilà li nga xam ni moom moom lay duré mën naa wax ni loo yu la donc loo yi nga xam mooy euh, réseau secondaire euh, tertiaire yi mais am aussi port autonome dañ koy assainir mais dañu xool ni aussi li nga xam ni environnement de façon globale suivi écologique bi yooyu dañ koy def ci vraiment ci projet bi lay doon donc mën naa wax ni d'ici 2024 nekk nekk loo xam vraiment mauvais souvenir la doon pour ñu terminer li nga xam ne projet de dépollution de la Bédane